bi da ngay jàpp ne ay léegi dans deux ans ci mhm. lu ñum si tëdd indi ci làmb la indi ci làmb. Mhm. ndax combat bi passé li ko topp Farma Dia dañ daan topp mbër. doy na waar open press am bi rek daa yàqu ndax ay mbooloo. da koo wane non mais kon tey ji Farma Dia war ngaa mën a xam ne xale bi fa mu toll ci làmb. Mhm. fi mu jëm. fi mu jëm fan la. surtout mais nag mais nag Farma Dia. dugg ci biir combat bi tuuti rek. ñëwal ñëwal. caatu ngiwal. warta xeex suba. déedéet. ah mm. lu waral loolu. Mm. combat a bëri Bamba Thiam. Mm, waaw dafa war a ñuuxu boobu Diop de. Mm-hmm. ok. daa war a ñuuxu Diop de xam nga war koo ñuuxu. Mm-hmm. déedéet. danger la ci caatu ngéwél Diop de ñaari loxoom ak ci ngembu caatu caatu caatu ngéwél. Mm-hmm. maanaam daf ko war a xañ ngembuli. da ko war a xañ ngeen ba pare bëri mun combat rapproché mooy bëri bu gaaw. Mhm. ok ar mu mel ne day xeex juyal ak jub de àgg ca ga. Mhm. bëgg falaa ba war ndomb ko wara mu jargandoo ak moom. Mhm. lu combat bi gën a gaaw suba gën a arrangé caatu ngéwél. d'accord. lu combat bi gën a gaaw bamba caam. arrangé caatu ngéwél ndax caatu ngéwél suba combat rapproché lu war a bëri. warut a bëri combat de warut a bëri combat der. nee nga nee nga nee nga combat rapproché la war a bëri mais nan la war a duggee ba du doon danger ci moom. Hmm. Diop de nekk na xale boo xam dafa am wet. Hmm. dafa am wet waaye day wàcc tànk yi. Hmm. day déclenché xeex boo xam ne du dëgg ci moom. ok jéem a jiwee la groupe euh, Diop de. xanaa xamoo ñaari baat bu bu bu bu caatu ngéwél taxawee Diop de dina ko tuute. waaw. cey. te saa yooyu ndikki ni Diop de tuuse na caatu ngéwél bu àggee ci yaramam ba làmb ji laa ilaaha illallaah. saa yi ngeen déggee ñu ne Diop de touché na caatu ngéwél. Hmm. arbitre sifflé na caatu ngéwél nga xeex Diop de jël jam na ko góos. da koy song te bàggee ca ngem ga lamb ji ko ci combat bi. non non bu Diop de jàppee lamb ji day jeex moo tax caatu ngéwél avant Diop de jàpp war na def li muy def dem ñibbi. mais ah, mais bu sàgganee bu sàgganee ba Diop de jàpp kon nan la war a réagir. lu war a réagir mooy xam nga lu tax loolu Bamba Thiam. waaw Diop de. boo jëlee ndiggam jëm ci suuf. mu hmm. bu taxawee caatu ngeewal taxaw ndiggam day romb ndiggu day toll ci daanaka dënnu ki nga xam ne mooy caatu ngeewal. ndax daf ko sut. xam nga lu waral loolu moo tax bu jàppee ñaareelu ngi lemb. ok bu siggee euh, caatu ngeewal day day day ñàkk appui. Hmm. loolu lay waral bu ñu ko defee action pour mu pour action bi ñàkk réussir day du nekk du yoon. Hmm. mën na yomb ci moom bu boobaa. waaw te Diop de dafa am benn bëre bi muy bëre boo xam ne Diop de du daan mbër jël rafet. cey. moom soxla wu jël bu rafet na nga daanu rek. ay la xëy mais Diop de lan moo ko war. waaw Diop de li ko war Bamba Thiam mooy arbitre bi sifflé mu cadré booy bi. Mhm. écran ko. écran ko daal di mu bëri comme euh, bëri moom combat am diggante si mhm. a gis. Mhm. waaw de dafa war a gis caatu ko gëddee bu raisonné bu fayoo mu jokkas ko góos. bu jàpp foofu nag Diop de da ko war a tëru. xam ngeen baatu tëru ci làmb. tëru. xaadim xam na ko. Mhm. waaw xaadim yàgg na sama ancien la. <laughs> nga ne xaadim nga ne xaadim sama ancien la. kon xaadim xam na ko. xaadim xam na ko bu moo ñu mag ñu ñëpp. <laughs> bu ko tëroo mu set. Eh. mu jàpp ca ngemb naa ne foofu lu nekk jig na fa boog jëm de. Mm. Bamba Thiam erreur la suba. Ah. caatu ngiwal bàyyi jub de ak ca ngemb ga. kon caatu ngiwal moom warul warul dëggal boppam ci combat bi. non Bamba Thiam man maa la ko wax caatu ngiwal feeg mu ngi bëreeg jub de. jub de jàppul jub de man maa la ko wax. mais corps à corps kan la gën a arrangé ci ñoom ñaar. jub de la gën a arrangé corps à corps bi. Ah. caatu ngiwal suba dafa war a wor. samp jaaga jégu ko ci. wor na wor. waaw caatu ngiwal day wor suba. kon la mu signature war koo bëree. déedéet bu ñëwee indee ma waaye lay bu bis bu xelam demee ci lu mu daan mais mais mais mais Fadam. xanaa ca caatu ngéwél. moo Diop de seen combat bi daa niru combat bu Modou Lo Boy Niang. la ilaha illallah. Modou Lo Boy Niang. ci jaay ku ci la nga mujjee bëri ci sa combat. kon ñamali baa ne ci da ngay hmm, ñaar. ci ñoom ñaar. la ilaha ca ca caatu ngéwél suba dafa war a naxante si. mais Mbapat mi kan la gën a mi. Diop de la gën jàpp ngeen ba xam nga tax loolu. waaw caatu ah. ngéwél dafa war a nax Diop de suba da ko war a jaay la jiitu ci làmb. d'accord ok. waaw ndax Diop de fukk lay bëri te caatu ngeel bopp lay bëri. kon Diop daal ñoom ñaar bu ñu runkum dajee ku mu gën a arrangé. bu ñu runkum dajee jàpp ngeen ba day am. Ah. te caatu ngeel avant Diop de jàpp mu. pare li muy def su ko wooyee ci xeex nag. kan bu ko wooyee ci xeex. Diop de bu wooyee caatu ngeel ci xeex wala caatu ngeel. woo Diop de ci xeex nee na loolu ko arrangé war dafa war a woote ci xeex boo xam dëgg mhm. dëgg. Ah. a woote xeex boo la. ok. mais est-ce xeex te du jàpp. kan noonu moom Diop de Diop de non non Diop de war naa mën a xeex sax te du jàpp. te du jàpp fenn xam nga tax ah. li nekk ci moom da nga koy tuusee. d'accord. mental ba dem. ok. Hmm. boo jàppee bëri mu yomb. Mm-hmm. mais jaatu ngeen képp moom nga jàpp ko te daa te tuusee woo ko. Hmm. dóor ko ay coups yu dal. Hmm. bëri xel ma day nekk ci bëri bi te am na chance bu daan la ca. ndeysaan. mais danger la ci jaatu mu bàyyi Diop de àgg ci ngembam. ndax mu daan Diop de utul jëli bu rëy mbootul deful dara na nga daan doon léew. yow de kenn ku nekk bëri na combat. waaw. waaw ah non Fadam Fadam bëri nga ay ndaanaan la ñu xam nga tax loolu ñaari hmm. làmb. Hmm. te ñaari xale yi naa ne leen rek moom ci jaaxal la ci jaaxal Fadam. bu subaa la ñuy xam kan moom moom soow mi. Eh, waaw eh, waaw waaw pourtant yan de wax na ko ku moom soow mi. <laughs> waaw bu subaa la xam kan moom moom soow mi. ak ku ci dàq woyal. Fadam. suba ah. ba fàtte woo plateau bi. non maag yow maag buur gi lay dar suba maag buur gi ñoo dina ma neex. maag sàppali ñoo la jege. yaa suba. ay waay waay waay Fadam waay kontaan naa. waaw suba ak daal. mais Fadam Fadam Fadam làmb ah. jooju ñu ñu def ko def ko def ko 31 décembre loo ciy wax. dégguma. ma ni làmb jooju. ñu jël ko def ko 31 décembre. waaw Fallou Ndiaye xam nga ne ceeb la nag moom bëgg na ñeneen ñi bàq ñàkk ba waaye bu doon may mbëri balaa maa ñëw dinaa mos muusal doog a dinaa doog a ñëw. bàyyi ba dëpp. Fada wax nga de mais Fada. am na ñoo na ñoo xam combat spécial bi noo gisee. muy kera kii kerati la Hercule ah. ñagas deux ak Hercule ak Hercule. mais nag kaay ma xala ñaari baat de. waaw. ñaari xale yooyu ñoo dàq ñoo dàq combat bi de. day daa. ñoo de xam nga nag xam nga ñagas ah, xam mu am doole la waaw waaye damaa bëgg mu xam ne ñagas booyu bawol boobu waaw damaa dem Fatick fekk ko fa uh-huh. ci àll bi uh-huh. muy daan ponkal yi mm. xanaa xamoo ñagas bu la rombee sa xel ci Balla Gaye numéro 2 rek lay dem ndeysaan ndax taxawaay ba waaw ñoo bokk taxawaay ba uh-huh. siggi ba bokk yaram bu ñuul ba waaw waaw waaw ñoom ñaar dañoo lambe mm-hmm. Mm-hmm. Ah, dama ne suba jàmm la amateur bi man di lam. wuy yaay yi la baaba ak ardo waay. non dama cee ñeme wax loolu. <laughs> aywa dimbali ma baba barki yéen bi man dama koy tudd sama xel di kii yi la baaba ardo. ndeysaan ku ma ci wax yéen la ah. baaba ardo ñëw mujjee wax. ñamal ma si. faram ñamal ma si. waaw maa ma Lamine de ak arbe. laa ilaaha illallah dugg sama mbër boo sama ñaari mbër. ndeysaan. <laughs> mais soir bu si meeku ñëpp nañ dar képp. waaw waaw. ndeysaan. na mu ah non tamit moog armée. <laughs> maam armée armée armée daanaan la armée daanaan la waaye maam Lamine gis naa ku muy yor état de forme boo xam ne nii ñu kuku. wuyay Ama bu yaraax ak Laye Brisili. non Laye <laughs> Laye Brisili mbay cuun su ma la mbay cuun di crise di ci laaj. oui oui. <laughs> su ma la mbay cuun di crise di ci laaj. kon ci daw na kii nag. ndongolo Fatma Diar bu ma indil ay problème bu ma indil ay problème bu subaa la wër wër wër la ñu seq la. Eh, mais naturel moom xanaa du ci wax ah. mais mais naturel xanaa doo ci wax ak nees la. dama ma cee wax <laughs> ndax xam nga sax loolu. Ah. boo ci waxee grand combat bi suulu. Ah. bu ci kenn wax. zil jël maximum bi ndax xale yooyu. Hmm. da ngaa gis eh? ay combat yoo xam ne nii ñooñu seen rêve yëpp mooy bëri jóg de. mën a jaatu ngéwél la moo tax suba jàmm ngeen gis làmb nga ne suba daal dinañ gis làmb ba naaw. waaw Fallou Ndiaye daal moom Mor Diouf. Hmm. ah, ah ñoo ñoo concurrent la ñu promoteur yi mag yi de xamul tax loolu. Ah. Hmm. espoir yi la jël te yaakaar naa ne la fay ñëw duñu ci lamb yi loolu ma jaaxal. ba pare jël journée bu mag bu sësoog moom Fallou Ndiaye ragalul de. non dama Fallou Ndiaye ah la ah Fallou Ndiaye tamit. <laughs> dañ koy de jëwul ma dañ koy jëw. instant bi ah, Ndiaye Ndiaye boo ko xoolee xam ne. waaw ceddo la dañ koy jëw <laughs> dañ koy jëw ceddo la ah ceddo la. daa gàtt waaye du xale de. <laughs> rakkal nga sama patron bi mais en tout naa ci yow Fadam nga nekk nit ku baax nit koo xamante ni yow daal yaram munu munu muñ ndax xam naa ne foo ma gisee rek ci ligne bi ci télé bi laa teg nii madame teg na lépp fii dara manqué wu oh, madame ndeysaan ak a neex fekk këram ajana ajana ngi nii fii dara manqué fii ane xaal bi an sa xarit ndawal asafur laa ndawal mais mais mais xam nga xam nga ne jabar jee dàq maa fecc ci àddina. àjjana maa la wax lii. Eh, nuyu ma àjjana. jërëjëf maa ngi c'est toujours avec plaisir ah de partager ak moom muy nekk Fadam mhm. toujours égal à lui-même nekk koo xamante ne dafa bokk njiital njaay production pare bokk Kewel info nekk koo mhm. xamante ne suma partenaire mhm. mais Xaadim dafa am lu mu doon lu am solo Fadam dugg ci waaw parce que dafa doon expliquer Diop de wax na état dafa doon wax ci état physique yi. Mhm. Fadam ñëw. te am mhm. tax fa xaadim ñi ñëpp mu yor nii. Mhm. boo yëpp da leen xam barki yonent bi. la Fadam doon dëggal rek. ci combat bi. mooy Diop de Diop de ak caatu ngéwél combat la boo xam ne combat bu nar neex la. Fadam dëggal na ko combat bi bu gaawee. Euh, kii la arrangé nu mu tudd sax caatu ngiwal mais lu mu gën a dem nag di gën a arrangé ki nga xam ne mooy Diop 2 mm. ndax Diop 2 day def li nga xam ne mooy jeexal làmb mm-hmm. njool la boo boo xam nu ñuy daanee voilà xoolul bu jël bu rafet xoolul jël bu ñaaw ndax boo si daanee moog armée 2 bii gis nga fii la ko daanee moog armée 2 mm-hmm. waaw fii la daanee armée 2 Fallou Ndiaye moo ko tëggoon fii la daana jeex jàmm Fallou Ndiaye moo ko tëggoon mm-hmm. Iba Mar toj na ko kooku xale la boo xam ne lépp man lépp léppay mbër gis naa ko ci waaw bëre bi nag bëriwul erreur am na erreur nag mais bëriwul ndax mbër yëpp ñoo am dëgg la mais Caatu Ngéwél su gee daan suba ah comme li ko fa doon day wor de. mais faaw mu wor faaw mu wor ca Diop warul du daan mm-hmm. de. su warul du daan du daan. macha allah mais xam nga ne xam nga ne Diop 2 moom day dox ci kawam. loolu moo ko arrangé. waaw Diop suba bu xeexee. Mm. xeex bi arrangé na ko su bëree bëri bi arrangé na ko. kon lépp am na lu ko arrangé wul ci bëre bi nag. Ah. mais affiche boobu am na ci beneen combat boo xam te ne sa combat la affiche bi. waaw ndax yile yile mi nga xam ne bu ah, ah, jógee jàmm gën day jóg. ndax yile Fallou Ndiaye tëgg na ko fii. Mm-hmm. Aliou Fët Fët moom Aliou Fët Fët fii la ñu bëri woon Fallou Ndiaye moo ko tëggoon. Mm-hmm. yile Baba fii la fii la bëri na ko réel numéro 2. Mm-hmm. fii la ak xale yoof bi Petit l'enfant. Petit l'enfant ak ak ak bu nekk Grand bu nekk Grand Médine damaa fii fii la ñu fii la nekk Grand Médine. fii la bëri Kama Junior. mu tegale maanaam victoire am yi am yëpp Fallou Ndiaye moo ko tëgg. ndax premier combat am dafa bëri Ibamar daanu moog soq numéro 2. bëriwaat deuxième combat am Fallou Ndiaye moo ko tëgg moog Nakouré la numéro 2 ñu daan ko mu bëriwaat fii moog Aliou Fatfat ñu daan ko nag ba mu fa nag dafa nekk ci ay dynamique de victoire mu nekk xale boo xam ne Lansar jàmm gën am nañ ci moom yaakaar su jógee mbooloo bu bëree bëree bëri da koy topp mais ki mu dajal dafa am retard tuuti ndax Ardo moo bëre ak mm-hmm. Ardo moo bëre fii ak ak Dorma Mhm. ardo moo bëri ak caatu caatu fora mhm. kon kooku tubay bu ñëwee ba bëri ak yilde mañikeere waaw fii la woon grand combat waaw bëri mhm. bu ñëwee ba bëri ak yilde retard moo ko def ci làmb ak defet yi mu tegale mu nekk combat bu neex nag cité bu anti ak agogo loolu expérience face à la jeunesse ndax agogo mi ngi bëgg a ci làmb général naa ko fii mook général bu Malika terrain église agogo seetaan naa ko fii mook bàcc séraas bi bëri tey bu jëmal aseg naa seetaan naa ko mook dun xaaf numéro 2 bëri ay combat mën a bëre trompoor numéro 2 lu mujjee bëreel fii. Mhm. loolu tamit ci combat yi nga xam ne amateur dañ koy xaar mais ñagas 2. Mm. bawol bawol la mosul dégg mu ñal écrit Cheikh Mbaba la nekk di xale boo xam ne mooy xale ba mu avenir la. Mhm. mais ki mu dajal nag joolaa la xàmmeewul janj ak joor. muy mhm. irkil borom 22 villages yi nee naa ko 22 villages yi bu ñëwee kañ la ñuy ñëw. chaque jour mu ne 22 villages. <laughs> gisaguma 22 villages yi de mais xale la bu am avenir unité 24 la dëkk moom it. Ah. parcelle am na ci moom yaakaar mu nekk combat bu neex. Mama Lamine 2 Rote énergie la mujj. petit loo ko mujjee daan mm. mu duggaat Rote énergie daje fa ak armée 2. Mm. armée bi mu duggee jàmm bi mu duggee fi nga xam mooy Kër Massar. Mm. Diop 2 mi moo ko daan. kon loolu ñaari revanche la mu am ci biir combat boobu noonu en tout cas daal lii lépp neex combat yi ma fi gisee. amaa bu yaraax musul dégg mu ñël laay burisu jóge ci defet ñagas 2 mi ma ko jë daan mhm. Fallou Ndiaye moo ko tëggoon fii la woon mu nekk combat bu neex tamit mhm. waaye naturel mhm. Fallou Ndiaye ko mujjee tëgg nees 2 nees 2 mi ngi dëkku ñàkk rab goro muudu antal la sans frontière mu xale ba mu avenir moom di mbooloo mu bari moo koy topp zil diene waalo waalo la nekk moom max mbër max mbër xale Pikine la ndaanaan la Tafa Maada Grand Médine en tout cas daal journée bu neex la journée bu doy suba comme ni ko Fadam waxee rek bisu mag yi suba du ko yóbbul dara mm-hmm. ndax Diop 2 mii ah nañ ko bàyyi fii montre bi moo ko mooy borom de. Mm-hmm. Fallou Ndiaye daal côté am na ku sàcc bopp waa ci sama xalaat ak sama gis-gis Diop 2 moo ëpp doole. non Diop 2 moo ëpp doole Thiatou Nguéweul sama gis-gis waaw Diop 2 moo ëpp mais bu dee bëre bu sew Thiatou Nguéweul la ko waaw mais suba nag laajul bëre bu sew bëre bu jaxasoo bi daal moom moo ci gën a avantage waaw suba suba war la laaj ci Thiatou Nguéweul waaw def lu mu gëmul ba daan Diop 2 suba nu mu ni mu doon bëree mu ruccee sensé dara ndox du bàyyi yoonam en tout cas sa fait tellement plaisir de partager. ak yow kon rek nee naa leen xaarim euh, nekk na koo xamante ni wax dëgg yàlla boo yëpp ngeen xam. Mhm. parfois dama koy woo ñu lox mu benn combat ma ne ko xaarim di wutal ma adversaire bi may na ko mu nekk. jërëjëf kontaan dem kon. kontaan na ci yow bu baax a baax yàqul sër le 14 janvier xam nga ne fii. Ah, waaw waaw OTDR FN si ñoo woote. waaw fii sa bal la ndax démb dama doon sàkkal waaw seeti Ousmane Ousmane Sàkkal di maire Sàkkal mu doon Balla ak Lagros caatu yoof ñaq jaruñu ñoom ñaar kenn la ci defet arrangé wu ñu ngi bëgg waa un tëddër events yëpp leen xaar la 14 janvier mhm. fils de Balla Lagros mhm. caatu Yoff ñaq jariñu mhm. booy Malika Sakes ngangu di bëgg Tafa Kanji sunu njiit la di bëggee Bamba 3 ak PDC Kanji production borom établissement Touba Darou Rahman nga xam ne suñu waay la jàmbaar junni ah. naa ba suba ah. damaa bëgg a dem am fu ma dugg génnaat rek suba est-ce que xaw est-ce que xaw ma foo mais ana Jackson yow Jackson waaw maa ngi koy félicité tey dafa war waa buun dañ koy sargal démb waa ñoo ko doon tey waa buun a koy sargal waa tey waa tey waa buun la mais fan yi xew ngeen de waaw cooli bari na wax ay combat mm. mais moom ku ñëw rek moom ndaanaan la kon pare ngeen moom ku ñëw rek baax na ñu ngi baax ci ndam li di kontaan ci ndam li bu baax boyka ngeen ko tuddee de waaw di encourager ki doon bëral di ko wax ko làmb noonu la uh-huh. su amaatee beneen combat rek waaw ko instant daa mel sa Jackson nga jëm da ca sargal ga non non sargal ba dafa am fu dugg nii rek maa ngi ah. les waxul maa lay kontaan ci yow jërëjëf Ba Moussa Thiam. en <laughs> tout kontaan nañu ci moom baax a baax muy xaalim bala ñoo tàggoo tàggoo bu dul ko. Mm. Ndiaye xam naa moo koy tëj. waaw euh, Cheikh la Mbappé mu ñëw sànni ay kaddu Fallou Ndiaye tëj ko ah. Cheikh Seye la Mbappé ah. après Fallou Ndiaye ñëw tëj bala ñoo dugal ki xam te moom mooy